ci yéen ñëpp di leen dalal jàmm ci seen émission Pencco gi ak RFM euh, tey nag euh, donte euh, daanaka sujet bi moom ñu bari ci Sénégal daal nañ koon teg ci suuf ci wàllu xeex beeg daan gi jëm ci corona gi ci pàttali rek ak ni ngeen ko déggee ci xibaaru wolof yeeg nasaraan ak RFM ak soxna Awa Mbaye ñaari at ci tey bi cas bu njëkk nuyoo Sénégal ginnaaw bi mu nuyoo ci àddina ba fële ci penku ak lam fi def nag ci ay loraange lam fi ba tiis ak naqar waaye ñeel koom bi dem ak dikk beeg lu ne ñaari at yi kon tey jii ñuy rek euh, taxaw seetlu ñeel jàngoro ji di Covid 19 euh, moo waral ñu invité ñu nu ci àndaloon ci njëlbeen di leen gërëm bu baax saa su ne euh, fu ñu toll docteur Ousmane Gueye professeur Daouda Ndiaye ak ñëpp ñoo xamante ni ay scientifique ay docteur waa kër l'hôpital yi ñu ci àndal ci émission yi ñaari at yëpp di leen ñaanal jàmm di rafetlu seen taxawaay bu weesoo Covid 19 ci beneen faat ndax ki lay faj. Euh, mënoo ko mënoo ko fay docteur Ousmane Gueye la ñu nekkal ci téléphone bi docteur ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Guèye ni ñu ko waxee donte nag àddina moom daanaka am na beneen <laughs> variant bu bu yeewu ca penku ca Ukraine ak xeex ba waaye corona gi ba tey bu nekkul actualité te lu mat a baxel la euh, ndax na muy wéyee di defi loraangeem euh, ñaari at ginnaaw si tey ban ban ma ban évaluation ngay def de façon globale ah, ci nguur geeg nañ ci taxawee askan wi ci ci xeexin wi. ah jërëjëf El Hadj Assane maa nuyu di ziar euh, ñëpp di nuyu professeur ne na mën naa ko trop <laughs> et du vraiment di nuyu sénégalais yëpp. jërëjëf euh, ñi ñuy déglu. aussi di la jaajëfal yow. jërëjëf parce que ni nga ko waxee muy deux ans deux ans ba léegi wax dëgg yàlla. Ah, yaa ngi ci xeex bi yow groupe bi yëpp. groupe Futurs Médias donc euh, ñi leen di remercier. di leen ñaanal. voilà di rafetlu vraiment taxawaay bi parce que il faut je pense que reconnaissance dafa am. dafa am solo. jërëjëf bu nit defee lu lu jara wax ñu wax ko. Mhm. ah je pense que ça c'est important. donc je tenais quand même à réaffirmer cela. di la di féliciter su groupe Futurs Médias ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mais di féliciter aussi professeur Daouda. ak vraiment auditeurs yi participer. Mhm. parce vraiment loolu lu am solo la. di wax ni euh, bi. Covid bi 19 bi commencé donc euh, muy décembre 2019 ci Chine ba ñu ñëw dugg Sénégal le 2 mars ñu am suñu premier cas. ba tey ñuy toll ni mhm. wax dëgg yàlla dañu naan euh, dañuy jaajëfal sénégalais yi. Mhm. Ah, dañuy jaajëfal sénégalais yi ci seen taxawaay. di à part sénégalais yi euh, ci lu weesu loolu. di jaajëfal aussi le gouvernement Sénégal. Mhm. Ah, autorité sénégalaise di jëlee ko président la république ba ci suuf. vraiment seen taxawaay. naam am na ay rëkk-rëkk loolu dafa te nañ ci mën a wax. ah waaw loolu du ñàkk. Mhm. parce que li ñuy wax rek œuvre humaine n'est jamais parfaite. dëgg la mais gis nañu vraiment taxawaay euh, état Sénégal ci euh, jàmmarloo ak euh, Covid 19. Mhm. mais aussi le personnel médical. je pense que loolu mënuñu ko fàtte. muy médecin yi muy infirmier yi muy sage-femme yi muy brancardier yi muy lépp lépp loo xam ne ñu ngi doon yëngatu ci. santé gis nañu seen taxawaay. Mhm. difficile na métti na. trop trop trop parce que tey boo xayma euh, ñi gën a am Covid. Mhm. ñi mu gën a laal ci personnel santé lañ bokk. Mhm. waa donc euh, nga xam ne mais malgré cela. baissé wu ñu dëgg la baissé ñu la. mais di féliciter aussi Assane damay profiter rek ci antenne bi di mm. féliciter aussi le comité national de gestion des épidémies mm-hmm. muy CNG mm-hmm. muy euh, docteur Marie Khemesse Ngom mm-hmm. euh, Ndiaye euh, jiite vraiment seen taxawaay ah, mais les autres ministères sectoriels yi ñu ci dugal seen loxo dama yooyu itam waruñu ko mën fàtte ah personalité personnalités yoo xam ne vraiment ay am nañu doole amuñu doole. Mhm. mais ñi ci dugal seen loxo. jënd ay masque ay gel ak yooyu. Mhm. dugal ko ci eh, xeex bi. donc euh, bref boo xoolee. Mhm. vraiment gis nañ ne taxawaay bu am solo. ci Sénégal. très bien mais euh, médias yi taxaw ci bu baax. am mu am solo. di regretter aussi euh, mënut a ñàkk. feebar moo demee noonu. ñi ci ñàkk seen bakkan. ñu leen di jaale. voilà di leen jaale. ah di masawu seen mm. famille. Euh, parce que vraiment am nañ ci fay nañ ci lourd tribut. Mm-hmm. parce que bu ñu amee décès toll noonu euh, métti na. voilà mais aussi gis nañ ni euh, Covid 19 bi lu mu indil système de santé bi. Mm-hmm. résilience bu ñuy wax mooy maanaam équipement bu ñu indil. Mm-hmm. équipement bu ñu indil mais xoolaat taxawaay système de santé bi. nan lañ mënee def pour. prochainement yu mel nii di am parce que day am tout day am tout temps mais buy ñëw nan la ñu war a taxawee ak nan la ñu war a lëkkaloo ak la sous-région. parce que gis nga épidémie du ci sa dëkk rek. Mhm. épidémie ñi nga dëkkal ñiy dem jóge bitim réew di ñëw ak yooyu yëpp donc stratégie yooyu yëpp. tey jii wan nañu ni war nañu defaraat stratégie am mm-hmm. solo. Mm-hmm. yu am doole ba mën a def face à ces à ces yi ñëw. dë dëgg la mais euh, c'est important ñu tirer ci les leçons. rawatina nag bi bi bi bi euh, guerre euh, jolle ci àddina guerre boo xam ne ñëpp la concerné. waaw bu njëkkaan sax da gis ñaari réew nit ñi daw di àtte ji mais fi mu ne kii àtte sax sa bopp ngay àtte ndax ku ci ne fa nga toog dina la fa fekk bu ci mbiri pétrole duggee ci ku ne xam wàllu koom roofaloo gi ci àddina wàllu euh, finance et cetera et cetera euh, xeex bi du ba kenn léegi nees mun a def vraiment pour pour pour gën a mën a fagaru nees mun a gën a joxe joxe euh, li nga xamante ni mooy importance ca la il faut vraiment peser les mots Sénégal nit ñi dañu foog ni yëf yi da nga koy coow rek mu mu jeex nga romb alors que tey la ñu war a gën a jàppante. tey lañu war a gën a débat yi jiital l' essentiel bàyyi waxi caaxaan yi tey la ñu war a gën a liggéey maanaam ci wàllu productivité. tàmbale ko ci man mi ku ne fa ngay liggéey nga gën caa jàpp parce que aussi léeg-léeg nit ñi laaj seen i droit mais nekk ay tappalekat yoo xam ni boo waree wàcc huit heures nga wàcc cinq heures boo waree wàcc dix huit heures euh, quinze heures fekk na nga dem sa yoon ci yow sa bopp doo participer en rien ci loolu nga bëggal réew mi di émergence mais li nga wax dafa am solo tellement que euh, d' abord lii daf ñu war a woon ni war nañu am suñu koom war am na secteur yoo xam ni waruñu sooxe dañ ci war a euh, kii dooleel ko mhm. maanaam système de santé war nañ ko dooleel deuxièmement éducation civique bi ni ñu daan def. Mhm. dañ ko war a dooleel. delloo siwaat ko je pense que loolu dafa am solo. troisièmement mooy citoyenneté. Mhm. xam nga citoyenneté mooy indi engagement pour sa patrie. mooy indi engagement pour sa nation. je crois que loolu itam dañu war nañu te engagement yemul ni ci wax kese. Mhm. li ngay wax rek liggéey bi ci la. kuy xëy waxtu wacc waxtu laa ko jox mu def ko ci yoon. ja xalaatu ci xaaru ci dara. lu may salaire am ba ñu ko nar a fay. Mhm. defe naa loolu bu ko ni ñi amee citoyenneté boobu ak engagement boobu. Mhm. lu bëre du ñu sonal. lu bëre du ñu sonal et vraiment ñu mettre le moyen fu ñu ko war a dugal. Mhm. dimbali système de santé. état mu ngi koy def tey jii boo xoolee euh, budget bi nu mu évoluer am na solo mais ba tey des na. ba tey des na ñu gën a dooleel système de santé. gën koo dooleel mettre le gens dans des conditions acceptables. mettre les structures aux norme comme niñ ko commencé nii. nañ ko mhm. continuer. Mhm. ñu continuer ko et di tàggat nit ñi surtout la formation. formation dafa am solo. formation dafa am solo il faut que nit ñi former wu continuer di former de def face à ça mais la population aussi di nangu di déglu borom xam-xam mhm. borom xam-xam yi et c'est important alaayasane aussi appel laa leen di lancer yéen ñi nekk média. parce que dañuy gis ni ku ne dañ leen talal micro. ku ne ñu tàllal la micro. parfois am na ay débat xam ni. Mhm. vraiment avancé wul réew. taxul réew avancé loolu la ñuy a eh, jox buzz loolu la ñuy gën a non c'est pas ça qui est important. aujourd'hui ce dont nous besoin. Mhm. moom mooy la formation de nos concitoyens. Mhm. waaw ña xam. c'est eh, réew mi fan la toll. nit sax bala nga ko invité da ngay xool profil ba. nest ak voilà ak réew mi fan la bëgg a jëm. defe naa loolu lu am solo la. surtout lu jëm ci wér gu yaram. Mm-hmm. wér gu yaram defe naa sookul la ci lépp li ñuy wax ni éducation sookul la mais wér yaram tam beneen pilier la boo mm-hmm. xam ne mënoo ko bañ a euh, euh, may doole. te réforme yi concernant la santé aussi xam naa ni di ngeen di ngeen ndëpp seen biir génn ci lu bari tamit mais bu baax a baax a baax parce ci li ci li ci mu baree. ci ñu leen kañ saasu noonu la ci am ay lu ci nëbbee loo xam ne ko war a dagg. tout à fait. je mm-hmm. crois que loolu moom. war nañ ko def. Mhm. war nañu toog suñu biir. ñu waxtaan ñu xool li li baax ñu gën koo dëgëral loo xam ne mu ngi sooxee ñi defaraat ko. Mhm. defe naa loolu. ñàkkul am na. Ah, vraiment muy comportement nit ñi muy accueil orientation yi ñuy wax au niveau des hôpitaux difficulté la. Mhm. Euh, euh, li ñuy wax disponibilité personnelle difficulté la yooyu yëpp mun nañ ko waxtaanee. mun nañ ko waxtaanee xool nan la ñuy def mais ay ah, damay wax rek vraiment man damay tirer chapeau. au personnel. ci ci deux ans yi. Mm-hmm. ci deux ans yi wax dëgg yàlla ils ont fait le maximum. am na ñoo xam ne toog nañu ay jours demuñu seen kër. surtout tout au début. booy xool feebar bi tout au début nit ñi ñu ko woon. Mm-hmm. da daan ragal ñibbi sa kër parce que yaa ngi naan am naa doomu jàngoro bi dama koy waale sama kër. sama kër dëgg la voilà <laughs> donc euh, vraiment. ñu leen di yombul woon jërëjëf voilà c' était très difficile yombul woon mais <laughs> wax dëgg yàlla macha allah. Hmm. tey jii li ñu gis ci omicron bi ak nit ñi niñ ko taxawee. Hmm. wax dëgg yàlla macha allah ay treize cas actuellement ñu ngi ñaan yàlla. Hmm. mu mu xam nga épidémie bi moom pour nga ne doomu jàngoro bi effacé nañ ko ci monde bi ça complètement ça sera difficile. mais li am solo mooy nit ñi bu ñu bàyyi les bonnes mm-hmm. pratiques. les bonnes pratiques El Hadj Assane gis nga même boo mënul dëkk ci masque sax xëy na. Mm-hmm. ah mais gis raxasu. raxasu du question Covid 19 kese. mais raxasu ci wér-gu-yaram nit la bokk. Mm-hmm. raxasu ci euh, comportement bu sain ci nit la bokk. je crois que loolu war nañ ko mën a. Euh, continuer di def. Euh, di di di ku ne daal di moytu. <laughs> am na solo ñaax nit ñi. jërëjëf di conseiller nit ñi. jërëjëf jërëjëfati docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay gërëm vraiment ñu ngi lay beral ngërëm yow tamit. merci beaucoup <laughs> merci ñu yendoog jàmm. Euh, gërëm sa sa sa naatango également professeur di Ndiaye mu ngi ak ñun professeur. professeur ñu ngi lay ziar bu baax di la gërëm di la masawu coono. jërëjëf El Hadj di la ko delloo di la ko delloo bu baax a baax a baax. di la di la gërëm di la félicité. di félicité euh, docteur Ousmane suma xarit. Ah. namm naa ko loolu moom it namm naa la yow it. <laughs> jërëjëf euh, di leen wax ne jaajëf d' abord. li Ousmane mhm. wax yëpp duma ma ci dellu si waat. Mhm. surtout félicitation yi. lépp la ñuy partagé. Mhm. parce que euh, boo xoolee tey ni ko jàngat bi lan la pour man ñaari at yi nga xam ne am na fi ñu koy sant yàlla. mooy lan lan moo lan mooy point fort yi mooy lan lan moo am loo xam ne jàng amal lu baax la lan mooy li yi nga xam ne. amul woon amul dañ ko war a renforcer. ak lan hmm. lañ ci war a jàngati ëllëg. Hmm. boo ko xoolee eh, finalité bi mooy lan lan mooy résultat yi tey mooy eh, daa ci ñëw rapidement. Hmm. Eh, dafa am deux choses yu mooy dafa am science dafa taxaw am fake news taxaw. te boo xoolee tey ba ci biir. Euh, fake news yi ñu ñu ñu tekkil fake news yi. Euh, sekkee nag ngeween yi waaw ñu ngi koy génn ci internet bi ci média yi. Mhm. loolu nekk loolu parce que scientifique yi. en général te wérul mhm. a ko gis def loolu. ba ci biir bi ci gën a solo mooy euh, boo xoolee lan fa fan lañ toll mooy on a li ñu yaakaaroon mooy hécatombe bu day am ci mhm. Covid. ñiy faatu et cetera surtout Afrique li fiy faatu na dafa bëree bëree bëri. du nekk am ci ba approche yi nga xam ne tegoon nañ ko wax nit ñi waxoon nañ ko ne nañ ko def pour aar. pour protéger. Mhm. fake news yooyu ñu wax ne bu leen ko def parce que lii la indi. boo xoolee tey li ñu may li ñu am tey ci àdduna. quoi qu'on puisse dire mooy yaay approche boo xam ne mu mujjee génn. Mhm. moo ñëw mooy vaccination bi. Mhm. tey ñëpp dangu nañu ne boo xoolee yu li mu gënoon a sonal ci dëkk yi nga xam ne am seen seen immunité amuloon doole muy dëkk tubaab yi. vaccin yi tax na ba tey ñu ngi dund ak jàngoro ji. mais ñëpp jàkkoon nañ ne lor na loraange amul. wàññi na baax. wàññi na bu bëree bëree bëri. nit ñaa ngi jaxasoo mais mais mais mais vaccin ak pass sanitaire yooyu. tax na ba loolu maîtriser nañ ko te loolu scientifique yi dañ ne woon waaw fekk nu na déet. boobu daal le ci leneen ak leneen lu bëri amoon na ci bu loolu weesoo. Euh, y a ce qu'on approche yi nga xam ne donc globalement la ñu teg et c'est l'occasion également de féliciter les leaders les leaders mhm. des pays mhm. que ce soit àdduna si suñu dëkk yi suñu leaders yi gouvernement bi mhm. état bi ministère de la santé ak ses démembrements mais également le corps médical précisément bu dul loolu ñoom différence ci làmbaay dina ñaaw dëgg la naam nit ñi faatu na ñuy jàll ñëpp ñaan yàlla ñëpp yàlla xarale àjjana amiin mais mënoon a gën a métti parce que ñooñu ñooy téye femme et c'est pourquoi par rapport à ces points forts loolu am na point faible li nga xam ne gis nañ ko mooy dëgg la état def na ci lu bari te loolu aussi tax na Covid permettre tous les états. Mmh. ñu leen ci doole yokku plateau technique yi mais lépp matalawul. donc loolu ñu teg loxo nañ ko continuer. Mmh. continuer la solidarité bi nga xam ne tey amoon na fi muy si muy ni nga xam ne ni nit ñi dañ doon dimbali ay masques yi ak leneen ak leneen. bu fi fabrique mmh. taxawee. jàppale état jàppale ñëpp. lu mel ni syndicaliste yi jàpp nañ ci. mais gis nañu ci biir également y a eu des frustrations. Mmh. comme point faible. Mmh. mooy ñu fexe ba nguur ñi nga xam ne ñoo nekk ci corps médical. Mmh. muy bii parce que yeneen day ñëw ñaanu ko yàlla mais c'est ça le monde évolue comme ça. ñu fexe ba ñooñu ñu ñuy fexe nu ñuy déggoo lépp mënta matale. te ñu fexe ba ñooñu di ci gis seen bopp ci lu bari. parce que ku nekk li nga sonn il faut que ñu mën la cee jaajëfal au minimum. et puis xool lu ñu la jàppale. wala et cetera loolu aussi j'interpelle l'État. loolu doo koy gën a jàppale. am na solo <clears throat> boo xam ne buñ ko fàtte rek réer El Hadj Assane parce que biñu dee ba xaw a réer ci vision yi xaw Afrique compliqué li taxoon Afrique lu am ci doole mooy l'approche communautaire mhm. mooy lan mooy gox bi mooy mooy mooy kilifa diine yi mmh. askan wi yëpp ci oui nañ mmh. boo xoolee à chaque moment il fallait ñu communiquer communiquer nañ ba ci vaccin yi wax ni jël leen vaccin yi dem leen hôpital mmh. ils ont été des médecins oui bu loolu ñoom dina juróoy waar les bàjjanu gox les relais communautaires les ASC ba ci les enseignants bi nga xam ne bi ñëpp doon ragal ne école yi dañu tëj ñu tëjul ñun def nañ ci li ci mën. Mhm. mais spécialement vous la presse. Mhm. yéen wax dëgg yàlla rôle bi ngeen ci joué. Mhm. c'est à saluer. précisément. à tous les niveaux. muy écrit muy parler muy lu mu munti doon. yow moom mention spéciale ak seen waa groupe. parce que jour pour jour. ñun pendant un an amuloon jour bu ñu doon tëdd te woowuloon ñu huit heures. ci la faisait ak ah, métti woon na. ba tey nga toogaan ne deux ans après dañ koy def pour xool. Mm. alors qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui donc bravo et chapeau à toi et à toute merci. donc loolu mooy li nga xam ne daal ñun. jàngat mm. nañ ko globalement. ñu mm-hmm. wax ne encore une fois dañu téye fi ñu taxaw. oui jàpp ne bu li ñu su li ñu mooy loolu mooy solidarité boobu. ak mm. renforcement du système. oui ak déglu ñu ku ci nekk boole ci ñëpp. pour que ëllëg li nga xam ne mi ngi ñëwaat suñu kanam xamuñu lan la. moom côté de boo xam ne kenn xamu ko mu yàlla yàlla yàlla sax ci ndox moo tax sax euh, moo waral xayma gi bu ma leen woowee yow ak docteur ci ci xayma gi euh, buñ ca jugee parce que mbir tam euh, bu la dalee ca jàngewoo ca dara moom daanaka sori woo bàyyi ma il faut nga tiire enseignement ci loolu faqasalu sax boo ko defee xanaa booy jaaraat ci yoon wa di nga xool ca doj wa nga daloon n'est-ce pas àddina guerre jib na fi kenn xamul fu mu yem est-ce que foog nga ni Sénégal ak yeneen réew réew yëpp waaye man comme maa ngi fii Sénégal waruñoo léegi gën a yeewu ci ne même thème yu nuy war a waxtaan daa war doon ay thèmes yi ful la c'est-à-dire l'heure n'est plus ci ay polémique ak ay ay ay xastante wala ay ay affaire de calcul politique bu mën a doon aussi bien le partie au pouvoir que l'opposition. alors tu as tout dit mooy lan mooy gis nga wax bu jooyee rek ku ko wax moo ko war a wax. Mhm. mooy nopp bi du ko dégg. Mhm. mooy je pense que aller vers sama morom lu ñuy wut su bëri bës la wut ak dégg nañ ma wax naa fii li am naa. dë dëgg la je pense que loolu. tant hmm. que mu ngi suñu kanam. Hmm. en fait dañ koy oublier. Hmm. pour man mu neex mu naqari nañu wax nañu wax li nga xam ne moo gën ci société bu métti tey bu soobee mu amal ñu njëriñ. parce que bu ñu quand on est devant l'essentiel te loolu yéen presse bi yéen lu ngeen lu ngeen bëgg a def mu defaru El Hadj. c'est pourquoi on vous interpelle encore une fois. pouvoir xam ne peut bëri ci yéen xamu leen pouvoir bi ngeen yore. mooy ci ñi ngeen di tàmbali seen micro yi mooy débat yi ngeen di mhm. loo xam ne tey lu tey bu ngeen bu koy defaat lépp day defu tey. bu ngeen defewul ne nag problème dina donc ñu privilégié les débats d' intérêt national. Mhm. débat yi nga xam ne moo ñor àdduna njëriñ mooy tey bu ko xoolee pendant longtemps lu mel ni Covid bi. Mhm. li tax encore une fois wax naa xanaa nga koy wax. ko li débat yooyu moo ko moo tax ñu gagné ko. solidarité boobu ñu wax importance. bi nii boo nga waxul waxu ko. mooy tôt ou tard gis nañ ko même les sunu doom africain yi démb gis naa euh, euh, waa ministère des affaires étrangères bu wax. Mm-hmm. mooy ñu ngi ci biir il faut qu'on aille vers l'essentiel waxtaanam tey. Mhm. comment faire pour très bien pour protéger leen. Mhm. ñu ñu def ba yóbbu leen fenn. Mhm. ñu def ba indi leen. quels sont les efforts. tey loolu moo war a nekk débat. parce que ku ci nekk ci ñun bu nekkoon sa doom la comme Covid bi mu fi ñëwee. dafa nekkoon débat bu sérieux par rapport aux étudiants de Sénégalais de Wuhan. dëgg la. même débat bi moo war a posé aujourd'hui pour les Sénégalais qui sont. aller vers am ñoo xam ni lu concret day taxaw ñuy maintenant loolu li ko indi nag am na ñoo xam ne bu diw wax na. Mhm. bu tonto tontoo wala lii parce que mën nañ ci jëlee lu ñaaw. non je pense que loolu société warul doxee noonu. Mhm. moi je pense qu'il faut qu'on aille vers l'essentiel. élage mhm. te dëgg rek mooy mujj. man ci préfet nit mere ma tey ci lu baax. dëgg la. que mu mu mu kontaan parce que xam naa ne dama bëgg lu leen neex moom dëgg la mer mer ak contentement nit sax d'ailleurs c'est tellement versatile nit ñi dëkkuñu fenn yàlla rek moo jar a ragal ak meram maintenant euh, li nga xamante ni mooy euh, Covid bi bi mu amee wàllu ñàkk yi d'abord ak discrimination bi ci amoon bu ñu yeewatul dootuñu yeewu ba mukk tey bu guerre bi dakkulee bomb yi continuer waxuma la ñàkk waaye ceeb sax dootu fi dugg léegi bu fekku ne ñun defaru wun fu nu jëm mais a raison tu sais ay vaccin mm-hmm. rek Russie dégg naa expert yu yuy wax parce que xaw ma ci lu bari. damay déglu dañuy déglu information utile. Mm-hmm. par rapport ak ak li nga xam ne dañ dul jóge Russie di ñëw fii nii. Mm-hmm. bu weesoo loolu même El Hadj Russie sori suñu dëkk yi Afrique xoolal Mali. oui xoolal problème bi fi ak aujourd'hui par rapport à la sous-région. oui donc ça dit que quoi mooy ku ci nekk aujourd'hui na nga préparer si réew. Mm-hmm. sur tous les plans. oui parce que dinañ toll foo xam ne ku ci nekk sa bu bu ñuy toppatoo encore une fois Ukraine bu ñuy toppatoo ne dañuy protéger île ukrainien ak ñeneen ñoom dafa dem ba ci biir africain yi leen jàpp ni leen leen waxal ñu ne noonu lañ leen pousse nañ toppatoo si ba ba pousse africain yi fële parce que nekk priorité. parce que mhm. seen bopp la ñuy xool ba pare. maa la ko wax c' pourquoi aujourd'hui également nous pour man lu ñu jàngatul ci Covid bi dootuñu ko jàngat. dëgg la. dëgg la da ngay nit ki bala ngaa bëgg kenn bëgg sa bopp c'est-à-dire ah, dafa mel ni nga topp di topp di bëgg koo xamante ni moom mu ngi lay dand nga nga koy fóon mu lay dand ñun tubaab bi ak ñoom suñu il faut ñu gën a am fulla euh, pas dogoo ak ñoom parce que àddina kenn mënut a demal sa bopp mais au moins qu'on pèse quelque chose sur la balance mais hélas c'est tellement vrai parce que boo hmm. ñoo jël seen jox la des vaccin yi alors que ñun lu ñu am amul. il ne faut plus rêver quoi ñoom seen bopp la ñu gën a bëgg ñun tam nañ gën a bëgg suñu bopp. nañu bëgg suñu bopp. voilà gérer suñu bopp ànd et puis te mhm. jàmm surtout surtout ça. je pense que tant que egguñu foofu. Mhm. xool ñun lan moo ñu suñu mm. ñu on wax wax yoo nga xam ne. ak yoo nga xam ne hélas dëgg la mel ni ñu ñu ñu tooñ wàll yi ñu xamul ñu dal. dañuy toog ay vraiment eh, eh, niveau débat war a egg fenn fi nga dégg yenn xeeti waxtaan ci réew mi da nga naan ñun ndax dañoo tooñ dañoo tooñ wàll yi ñun. Eh, am na débat yoo xam ne kenn waru ko def ay débat ci ci réew mu bëgg a suqaliku. Hmm. boo déggee nit wax na lii lii même hmm. fekkee ne neexul arrangé lu métti na Pram, je le donne l'exemple des syndicalisme, par exemple, aujourd'hui des enseignants au lieu de l'État. Mhm. muy sant muy fit c'est-à-dire que même fi koy waa ji li muy wax neexu la wala métti na. Mhm. toogal ak moom ngeen waxtaan. oui oui ngeen xool solution parce que boo ko dégluwee dina dem wax ko feneen te boobaa mën na yàq lu bari. dëgg la kon kon kon discute ay laaj nañu wax. loolu nit nit ku mat a ko mën na xam nga responsable aussi dañoo laaj mat genn gi ci yow. dañu koy laaj malheureusement parfois day mhm. def. dëgg la c'est-à-dire que ñi ñi ñuy jiite. je sais que am nañu lu ñu bëgg te ñu koy def. am na ñàkkul na ñu ñuy yónni ñoo xam ne peut-être am na fu muy sooxee. gars yi buñ li ñuy wax muy les syndicats des enseignants muy du centre de la santé. Hmm. bu fekkee nguur dégluwu du ñu am solution. il faut ñu toog waxtaan ak ñoom lan mooy solution par rapport à ça parce que dama gëm ne sont pour ce pays là. keneen ku leen wax leneen da leen di yàqal seen réew. loolu daal laa bëgg. mais merci. di lay féliciter encore une fois. jërëjëf di remercier auditeurs yi. Mhm. parce wax lu arrangé kenn lu neexul kenn. lu mhm. ñu baax lañ bëgg. dëgg la ku ci di la baalu. encore di lay mission yombul. Mhm. mais yàlla yàlla jàppale la ak képp ku mel ni yow yàlla yàlla jàppale la. ñu bokk lépp yàlla yàggal taxawaay gi yow tamit ak euh, sa naatangoo yëpp la personnel médical le ministère de la santé le gouvernement euh, kilifa yëpp ci gàttal ak mboolem secteur yi ci réew mi euh, di jégalu ci njuumte yi ni mu koy waxee ku ku nit ku ne dafay juum rek léeg voilà xew na fan yi sax ci wàllu jàngu bi ak imaam euh, heureusement que moom am na matuk jéggalu ñu ci des kilifa yi am nañ matuk xam ni njuumte la di ñaan mu bañ a amati ëllëg ku ne la ngay génne nga koy xam euh, ndax ni ñu ko waxee ci gàttal mbub daal boo natt mu jot la mën nga ko solal sa sa sa morom waaye bu cëkkee ci yow rek bàyyil ci suuf bu ko solal keneen bu ko defee ay du am 9h04 euh, sur la RFM macha allah sama copain Ablaye <laughs> dafa am dégg nag li njagam wax dëgg la ku ne am nga koo saf ku ne am nga koo koo koo soof ci foo ko dara moo taxoon màndikat ba ne ko lamb yaa tey daagul fañ la nobee rek <laughs> mu ku ci bawul di daw ci ku la nobul eh, nekki may bañ tudd kii ma janool ci mbedd Medina yi 88 628 14 14 RFM rajo Futur Média dellu di leen gërëm mbokk yi di déstressé rek ndax xam naa ni poos yi moom xaw naa <laughs> xaw na wéet jamono yi asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Assane. Euh, bisimilah Boubacar. ñoo ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yëpp. jërëjëf. di ñaanal suñu ñaari médecins yooyu génn ak yow mu nga xamante ne groupe Futurs Médias yëpp. ñu bokk lépp incha allah. seen taxawaay si Covid 19 bi. merci beaucoup. ak askan yu nga xamante ne ñoo ngi dañ jël muy kuréel yi mu mënta doon seen alal di ko def ngir lii di feebar bi ñu xeex ko. Mhm, mhm. ak ñu nga xamante ne ñoo wékk si ministre de la santé si seen liggéey bu rafet mooy waa kër docteur. dëgg la ba les ASP du Sénégal donte lu ñuy am jënd nañ ci ay bagages dem di ko jox askan wi. Mhm. Alaaji Assane lii mooy Sénégal. dëgg la waaye nag yow sa taxawaay si réew mi. Mhm. c'est très important parce que da nga nekk conseil international. jërëjëf jara taxaw nga si taxawaay bi rafet yàlla na la yàlla jàppale mhm. maa ngi nuyu monsieur ministre docteur Ndiaye si kees taxawaayam aussi jërëjëf jërëjëf Boubacar vraiment ñu ngi lay gërëm yow tamit noonu la rek nit moom da ngay engagé wu ngir sa réew euh, on est vraiment 16 million de sénégalais bu ko ne taxawee na mu war a taxawee fa mu nekk rek def li nga mën ndax nit moom mënul def lu may la mu mën waaye li bon rek mooy bañ a am volonté en toute chose defal la nga mën la des nga ba ak sunu borom. 88 628. salaamaaleykum 14 14 waaleykum salaam. Guèye Guèye. akay ah, Sow. alhamdulilah rabbil alamin Guèye. bisimilah kontaan naa lool macha allah geeru xel mu rafet de xel mu sell macha allah tey moom danga ma bëggal tey moom yaay sama nijaay Alioune Badara Diagne Golbert maa ngi lay yal na la yàlla suturaal lii mooy Sénégal tey moom waxtaan bi macha allah lii rek nañ yi tegu Sénégal jëm ci kanam xoolante ci bët waxante ci mhm. bët mhm. séq wax jàmm wax salaam wax ju rafet sóoraale mag ñi mhm. yal na la yàlla suturaal kontaan naa trop tey si sa ñaari évité yi ñuy wax faj mm. nañu lépp wax ju rafet wax ju dal wax ju teey mm. wax ju am sutura jërëjëfati maa ngi nuyu groupe Futurs Médias yëpp merci jërëjëf Guèye Ndiora yàlla yàlla fay jërëjëf jërëjëf Ablaye Diop jërëjëf euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah Ouma. El Hadj maa ngi lay ziar di la nuyu di la ñaanal yàlla. amiin ñu bokk lépp. di rafetlu vraiment sa taxawaay li professeur Daouda Ndiaye wax na lépp. Euh, vraiment un an deux ans c'est pas ñaari fan. xeex nga ko taxaw nga askan yi taxaw nga sénégalais taxaw nga réew mi yëpp. maa ngi ñaan son excellence monsieur le président de la république na bàyyi xel ci El Hadj Assane Gueye bu RFM. bi see Covid bi bu mu fi gën a méttee fii laa la wax dëgg yàlla yow yaa doon am jël rajo bi di woon nit ñi di sensibiliser nit ñi vraiment Alaji assan mention spéciale à Radio Futur Média. jërëjëf Omar rawat na yow tamit vraiment ñu ngi ñaan le système de la santé enseignement ñu ngi sook la mais système de la santé Alaji Assane. Hmm. président de la République man maa ngi koy ñaax. Hmm. di ko ñaaxaat na gën a bàyyi xel ci sa ci bi Alaji Assane. Hmm. puis xoolal fii oh, dans les régions la man waxuma la saa Kolda mais dans nga dem feneen ak feneen feneen feneen feneen la système de santé bi lu mu ko lu mu ko demee doy na waaru trop. Mhm. xam nga Kolda defa couvrir dafa dëkk boo xam ne dafa frontière ak presque mun naa la trois pays limitrophes moy la Guinée-Bissau la Guinée-Conakry et euh, la Gambie. Mhm. léegi hôpital bi bu taxawul nu mu war a taxawee rek vraiment loolu dina andi jatal mhm. te te te encore Alaaji Assane bi ñëpp am mooy jël seen malal yóbbu leen Dakar. xam nga Dakar waxuma la logement bi mais transport bi par mhm. exemple nga dëgg Kër Massar war a dem hôpital euh, fale dalal jàmm mhm. il a nga louer taxi wala wax dem ay Dantec xam nga loolu tamit dafa kii maa ngi ñaan vraiment les autorités locales lu mel ni El Hadj Mamboy Diaw mhm. ak vraiment yàgg nañ taxaw waa Kolda mais nañu gën a farlu góorgóorlu puisque santé bi vraiment am na solo trop Alaaji Assane maa ngi lay gërëm parce que dañaa leen defal Euh, ñu ngi ak euh, madame Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax xam naa nga nuyoo présenté wu ñu ñu waxtaan wi. waa nga maa ngi lay fay di bëgg ci yow toujours man madame Diago Ndiaye laa tudd. di jiite kuréel fii ci Sénégal bu ñu naan réseau paix et sécurité. pour les femmes de l' espace macha allah te kuréel bi ma jiite aussi ko ci jóg fukki pays ak juróom yu CEDEAO. alhamdulilah sama wootaayu tey bi nag mhm. kontaan rek. Mhm. vraiment féliciter la ci idée bi nga def rappel ci les moments que nous avons vécu pendant la pandémie ak Covid-19 mhm. ñun ñi dañu tegoon kuréel bu soixante-cinq organisation liggéey ci mhm. avant président de la république sax joxe mhm. nit ñi ñu engagé ñun dañu engagé te famille yu faible yi à faible ménage les femmes chefs de ménage lay di visé woon jot trois trois mille familles mhm. ci kaw loolu nag li professeur Daouda Ndiaye wax mhm. résultat boobu suñ ko amee mhm. grâce à vous surtout à à à vous journalistes principalement vous El Hadji Assane Gueye on sait le combat que vous avez mené par rapport à cette pandémie on nous connaissons le travail de sensibilisation bi nga ci def tax nit ñi bés bu ñu xëyee déglu na nga invité nit man mm-hmm. mii invité woon nga ma mm-hmm. mais li gën a am solo mooy nañu continuer comme ni ko docteur Xemes waxe tey ci seen rajo liggéey nañoo ak moom xam ni mbir mi jeexagul mais nañu gën a takku pour euh, liggéey bi gën a jëm kanam mm-hmm. mais nag li nga attiré sama attention mooy problème Ukraine bi mhm, xam ni mhm. suñu mbokk africain yi suñu doom yi nang ñang leen fa bàyyi maa ngi déglu tey benn vidéo benn ivoirien bu wax ni dañ leen yóbbu ba ci frontière bi mhm. ñu def soixante six kilomètres à pied ña leen bàyyi ca sedd ba te xam nga de mesure discrimination dafa am ndax dégg naa ni noir yi nit ñu ñuul ñi comme ñun du ñu jël bus boolewuñ leen ci duñu dugg mhm. ci métro yi duñ dugg ci moyen de transport yi ña nga ca àll ba toog ak mhm. seeni doom sama yaram dafa daw sax ñi uf seeni doom ñi nga xam ne jigéen jigéenu wérul lañu mhm. étudiant yoo xam ne dañ fa demoon di jàng suñu ci kenn donc Union africaine ak CEDEAO ñun dinañ leen sax interpellé ak suñu état yi nañu lëkkaloo pour ñu protéger ñooñu en attendant seet suñ leen def en attendant. Hmm. ñu nu ñu leen di indee. Hmm. parce que ci dignité hmm. malheureusement madame Ndiaye àddina moom xam naa ni c'est vrai que mooy li may wax léeg nit ñi bul bul xaar ci ñoom ak laa biir lu may rapport de force dafa teew. Euh, moo tax ñu waral liggéey liggéey. Euh, moi j'insiste sur des trucs yoo xam ni xam nga nit tey boo waxul dëgg rek wax safaan. boo nekkul liggéeykat boo fonkul liggéey fonk tappale ak leneen ak leneen ba ba tumurankeel sam réew Afrique de façon générale. mais rapport de force fi amul donc ñun mënuñoo exiger lenn ci ñële lu may lu saraxul. dëgg la waay dëgg la loolu mooy malheureusement l'actuelle situation comment faire pour inverser ko nañu nañu yeewu man je pense que depuis esclavage depuis xëy na leneen ak leneen bu ñu yeewul ba léegi vis-à-vis de ces gens-là de façon diplomatique bien évidemment parce que àddina fi mu toll am na yeneen i yoon yu nu mën a jaar ba wane fulla ca du doon xeer du doon saagante lii nga wax dëgg la parce que ñun ci li ñuy liggéey dañuy wax diplomatie préventive mhm. diplomatie préventive mooy lii nga wax mhm. jëlaat sa sañ-sañ jëlaat sa mën-mën mhm. mais nga xàll yoon woo xam ni sooy wax say nit nga xam ni da ngeen séq langue diplomatie nga xam nooy waxeek moom nooy jëlate sa bopp nooy jële sa bopp te ñu fonk say wax ñu jël la en considération yow it exactement ñun Afrique kat xëy na peut-être ñu euh, doole gi bi ñu yaakaar mais am nañu suñu doole jeunes yi. Hmm. ku gis keroog bi Lions yi ñëwee li génn ci jeune ci àddina fii ci Sénégal nga xam ni wax dëgg yàlla question boobu nañ ko yëngal teg ko ci taabal ji liggéey ci. Hmm. xëy na avec les jeunes. et faire travailler ces jeunes là ñu xam ni. 24 heures nit mënu koo passé ci ci ci dundam 24 heures waxuma sax ay at. ci topp ko ci internet ak a saagaanteeg caw ci jeune boo xam ne yaa ngi kattan yaa ngi nekk ponkalum jëmm. Mhm. loolu la ñu war a jëkk wax mhm. liggéey ci pour xale yi def seen xel ni mhm. liggéey du nekk ci réseau sociaux yi di saaga liggéey du nekk ci réseaux sociaux yi di photo liggéey nekkul ci réseaux sociaux yi nañu ñaax xale yi ñu gën a jàngi defi formation te kooku nag état bi moo ñu fi war mën a dimbale dëgg na naam sax xëy na état bi def na ay progrès ci loolu mais dafa doyul doyul ñun ci sañu bopp sénégalais yi ci suñu bopp ñun ñoo war a am suñu engagement bopp mm-hmm. suñu engagement ku nekk wàll wa nga nekk. nga jël sa engagement ni damay jël question bi. Ah ah. def ko sama question personnelle. investir ci ma madame Ndiaye quelque part sax est-ce que du euh, c' est valable pour réew yëpp souvent dañuy dañuy xaar lépp ci état waxuma ko pour dédouaner leen mais fulla bokk na ci aussi aller vers l' emploi aller la formation tàggat sa bopp ci noo xam ni ak it boole ci doylu. société mm. beeg na nuy bindeeg matérialisme gi et cetera. loolu tam du yoon wu baax nga foog. mooy li ngay wax ku nekk xam na ni état mënul def lépp état n'est pas un une société buy employé ay nit mhm. état mënul faj soxla yëpp donc mooy li may wax nañu organiser wu mhm. ñi nga xam ni yàlla jot na leen koom ñi nga xam ni mën nañ dem wuti partenaire mhm. ñu dajal leen nit ñi former leen jox leen financement liggéey leen sàggat leen xoolal rek dëkk bi ni mu mel àll ba kenn nekku fa dama mhm, koy wax mhm. qu'on apprenne à partir vers l'agriculture rural mhm. foofu la développement nekk foofu la koom-koom nekk te loolu tànk def wuñ ko am conscientiser xale yi nga xam ne dañu nekk Dakar nekk laveur de voiture marchand ambulant ak yeneen profession yoo xam ne c'est illicite ñu koy def nañ leen organiser ñu dellu dem bayi parce que bay mooy suqali réew. Mhm. sànq defuñu ko wax dëgg yàlla bàyyi nañu suñu bopp bàyyi nañu suñu état. jërëjëf gis nga Assane xale yi nga gis yëpp ñuy traîner fii. muy jànq yi nga xam ne dañuy liggéey muy laveur de voiture yi ambulant yi. tey mhm. la ñuy ñëw constituer capital. Mhm. pour jël gaal pour dem traverser géej gi wala dem ci. désert bi désert bi wan na leen ak géej gi. dunu àgg. te fii la ñuy wute capital bu nit ñi nag. xaw ma na xalaat nañ ci loolu mm-hmm. la xalaat jërëjëf en tout cas ñu lay gërëm bu baax madame Diago Ndiaye jërëjëf jërëjëf merci beaucoup yow nag dinaa la woowaat parce que suñu projet daaw ba ba léegi àggalewuñu incha allah yitte yitte yi rajo bi rek mais incha allah looñ ci woo rek ci wàllu développement ak wàllu askan yi moom ñu ngi lay encouragé suñu amoon dix journalistes yu mel ne yow alhamdulilah kon dépassé nañu. jërëjëf merci Ndiaye li li daaw da doon wax. Mm. ak fake news ak yu ma xam. Mm-hmm. merci beaucoup merci Ndiaye jërëjëf am na solo ñu koy gërëm bu baax di ko sant euh, surtout ci wàllu paix ak sécurité surtout soxna yi euh, ñoom ñoo yor kër yi ñoo ñoo yor cellule familial dañ cee jouer bu am solo ak euh, ni ma koy waxee rek waaw nit moom. Euh, alerte amati na de ndax euh, bomb yële mooy dégg ca ca Ukraine ak Russie euh, banques yeeg bourse yeeg nii lépp dérèglement mondial <laughs> yàlla nañu yàlla jàppale waaye ndimbal da cay fekk loxol boroom nañu gën a jàppante ñun suñu biir bu ko defee rek booloo mooy doole Ablaye mu ngi ne ñu jël le dernier auditeur asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Papa maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. di Seynou rapidement. di jiital Hasbunallah ni man wakiil ni man mawla ni man asiid hmm. vraiment di rafetlu émission bi bu baax surtout sa invité bi. monsieur Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax. Daouda Ndiaye jërëjëf. Daouda Ndiaye. Papa El Hadj Samb vraiment ñu ngi kontaan bu baax liggéey li ngay def. jërëjëf jërëjëf. man euh, benn message la lancé. Hmm. Euh, surtout si président de la république. xanaa kay maa ngi koy ñaan mu defal ñu Papa El Hadj Assane vraiment ministre conseil parce moom lépp lu mu conseil moom lu baax la. <laughs> yàlla xam na yàlla xam na. Ousseynou baal ñu eggale waxtaan wi ci whatsapp ma ak yow xam nga. ma eggalu ma tuuti ma eggalu waaye. Euh, vraiment su ma sañoon. defal plaidoyer waa Kolda dégg naa seen hôpital bi daa am problème mu scanner xaw ma lu fa am. waaw waaw xam naa boo ma dégg dama ko bàyyi ak Oumar Sow boo bàyyi ma bàyyi ko ak Oumar mais man daal. vraiment vraiment <laughs> asalaamaaleykum jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëfati ñuy gërëm euh, ñëpp ñun àndaloon ci wecc konte bi lépp ngir réew mi rek ni nu koy waxee <laughs> Ablaye la nga ne naam ne fa te balaa gaa yi xam li jàmm di jariñ waaw euh, ndok am waaw balaa ñu faa egg nag nañuy di euh, bay jàmm da koy bay comme ni ngay bayee ceeb waaw di récolter lu dul jàmm ndax li nga bay rek ngay récolter lu ko mooy leneen. ñi leen ngi wax waxi kaaw ak ay ay réserve ñun suñu kër yi sax d'abord amul kaaw xam naa ko fi tabaxati booy boo wax Ablaye ngay wut benn kaaw on ne sait jamais à l'avenir ak euh, toutes ces bombes nucléaires là ku ne di exhiber des États-Unis en passant par euh, Corée ku nekk say ngànnaay rëy bi ci topp mooy wàllu réserve bari lewuñu ko ñun dañuy dund au jour le jour amu fi ko mën a denc dempaasu juróom-ñaari fan bariwul am na naam mais boo xoolee ab dànk la buñ ko méngaleeg les milliers et des milliers de sénégalais kon nañuy wax jàmm di ko dox waaw internet geeg facebook ak ñuy juum wax yu sew sewaan yi benn nit ñaari nit tey wax waxi njuumte ci ay millions de personnes wartu mun a am njeexite gi waruñu mun di jox solo lu ko amul bàyyi li am solo fële ca wet ga na nañuy fësal yi am solo di vraiment exalter le bien ak liy jëmee réew kanam ca bayu sew sewaan yi nga xam day yàq kooku sunu borom sax xanaa ayib sax da koy nëbb mais kenn xamul lu nu daal rek li may wax encore une fois bu ñu tooñul <laughs> lu may bañ a tudd dina ma jaaxal yàlla yàlla def jàmm ci réew mi jërëjëf Yacine ci digital gi may ñi nga xamante ni.